bëriwaat jël la am des ba dina santaande yëpp man Gaston Mbengue laay teg man du man moom du ma man du ma reculer aw ma lu may maye ci laa ci teg man maay diriger nga naan tànk tey buy am man maay tànk mais noonu man góor góor góor ëpp ma doole si réew mi ñu nekk yàlla mooy dogal loolu mais li ma la mën a wax mooy liggéey nañu liggéey bu méttee métti ci combat bi su dawee ma dàq ko bu dawul ñu taxaw samp jàkk la may ñaan yàlla mooy arbitre bi nañ teg foofu benn bantu trente mètres rek jóge suñu diggante réew mi ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ñaanal jàmm di leen ñaanal sutura waaye yaakaar naa ne tey jii kii ñu jàkkaarloo réew mi xam nañ ko ndax yaakaar naa ne sëriñ Cissé mu Serigne Babacar Sy réew mi yëpp xam nañ ko Serigne Cissé nag menn mbër rek la ko réew mi yëpp xamee xamee wuñ ko ñaari mbër xamee wuñ ko ñetti mbër benn mbër la mës di ngemb ci làmb te ba tey jii fii ñuy wax ak yéen moom rek lay ngemb. muy le roi des moo Modou Xarañ Lo Serigne Cissé yaakaar naa ne buñ la nuyoo ñaanal la jàmm ñaanal la sutura looy nuyoo réew mi ak waa diaspora bi ak képp koo xam ni yaa ngi bëggee làmb rek Serigne Cissé lan nga koy wax. rabi sarax li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli mbokk yi naa bu nu sant yàlla julli ci sang-sang yi muy Seydina Muhammad ñu ngi nuy ñëpp di siyaare ñëpp di leen nuyu ci baatu asalaamaaleykum. wa rahmatullahi taala wa barakatuhu fadam ñoo leen nuyu di nuyu mboolem koo xam ne moo ngi nuyu bàyyi xel travers diaspora ak fii ci Sénégal. Serigne Cissé. Mhm. lan moo la booleeg Modou Xarañ Lo. Modou li nu boole avant tout mooy ne bokkoon nañu dëkk bokk dëkk ca parcelle. Mhm. booba Modou mu ngi entraîné foofu ci école unité 10 bu parcelle. Mhm. booba kër baayam gi melagul ni arduwaas la booba mu nekk fa ak njaboot ak baayam gi yëpp waaye yaakaar yi yëpp nag yàlla dogaloon ko mu nekk ci jëmmam ji jamono boobu la ñu xamee euh, boobaak léegi nag mu ngi bëgg a yàgg waaye booba dëkkandoo ak kóllëre boole nu ba waxtu wi mu du yegsi fi mu yegsi waaye booba avant de xame gi dëkkandoo ca njëkk ba xamee ñëw ñu ànd ci lii ñu ànd mm-hmm. Mm-hmm. Serigne Cissé Modou Lo nekk roi des arènes. Mhm. ñu dégg ne diggante mag Boy Niang taxaw na. Mhm. ñu daal di daw ñëw. yaakaar naa ne Boy Niang numéro 2 moo daan Balla Gaye 2 mi daanoon Modou Lo. Mhm. Boy Niang ñëw daan ko làmb jooju boo amoon loo ci wax amateur loolu nga leen ciy wax. waa nanu xaar làmb joo xam ne bu ci at bi buñ ci bëree da nga gis làmb ju neex làmb joo xam ne nag xam naa mosunoo gis. ku sol trois pièces jesner wàcc ci digg ci géew. diit waay li wax sëriñ Cissé. combat Modou Boy Niang. waaw sëriñ Cissé lu mu daan def day def yebal gone yi ñu dem mu des ca kër ga. waaw waaye bii sëriñ <laughs> Cissé dem estaat. sëriñ Cissé mooy wax ci arène nationale débat déeb yu mujj yi Modou di def. sëriñ Cissé bokk ca ña koy def taxaw ne bii nañ ko defee nii bii nañ ko defee nii bii nañ ko defee naa. ndax bis ko laaj ndax première sorti ci roi des la kon loola waru ko ñàkk waru ko ñàkk te loola day laaj lu ne te moom laaj lu ne nag def ko rek damay wax ne làmbu tegtal la te tegtal ye ku la ko gën a fonk dàq laa yóbbu victoire te làmb ji da di làmbi tegtal tegtal yooyu nag Serigne Cissé dénkaane naa defal leen ma lii du ma ci doy maa koy jàpp ci sama bopp bi di ko defal sama bopp ba Moodu bëree daan ndax Moodu dama ko waxoon na ko keroog boo doonee roi des arènes ma ba. waaw waaye làmb deret la juy dox ci deret la joo xam ne bu duggee ci sa yaram jeex na bu sa nit xasee signé rek dootoo am jàmm. ñu dégg ne Modou Lo dimanche lay jàkkaarloog Boy Niang réew mi yëpp ne Modou bàyyi na ñaan lu Modou bàyyi na ñaan lu déedéet adduwaa usilaa ul mu'miniin la arab boo xoon dane jullit bi ne naa mu ne ngan lan mooy ngàndaayam ci bu jaaxle ak mu jëm ci dara lan mooy ngàndaayam dëgg-dëgg ñu ne mu taxaw ñaanlu ñaan ci ban façon moodu am na duraawu ñaan ci ban façon ndax mu ngi mu ngi ci baatu jullit gi baatu seede yi si la ne nit ñi dañuy dugg ci sew sew boo xam ne fanam du nuy bàyyi xel ñaanlu gi mu ngi ci day ñaanlu ndax ñaan gi dugul pour victoire bi ngay daan ñu bëti jaan ñi nekk ci kaw esaat bi ñëpp sifle indi na forme indiwul forme kooka nag boo fexee musuma woo ci ñoom mën na la xeeñ sax sa bis ba la ilaha kon loola moo tax ma ne la Moodu nit ñi dañ ne du def lii Cissé ne day sol trois pièces jeunère def ni mu def wàcc ci géew bi yor sa gi di bàkk yàlla sarax yi war a génn ma dëpp combat bi <laughs> sëriñ si wax ni maa la wax li alaaj euh, ah, alaaj yàlla xam na ne sëriñ si mu sëriñ Babacar Si jël ay engagement xam waxtaan ak ka muy yóbbu ne la nii la du ma indi defet Lamine doo xam nga xam nga xam nga lu ma jaaxal Lamine mm-hmm. Boy Niang dafa wone barki démb ci mystique loo xam ne nii ci ñaan loo xam ne kii mosu koo natt ci làmb mu ñëw daan daan liñ kóor gi ki man ci làmb guddi yi muy Balla Gaye numéro 2 Serigne Cissé Boy Niang numéro ndax neex na dama xam fi mu ngemboo. Serigne Cissé loo wax nii dama xam ne xam fa ngemboo man maay Sénégal. Serigne xam nga fu mu. ci maay Sénégal ci pël ñi maay Sénégal Saalum maay senegal Bawol maay senegal ndax ñun ñëpp dama amoon ñoom xalaax ndax saa baay moom a njëkk a wax ci àdduna na ma dara bu fekkee sa tiraanga da cee ne jaral dara. te ëtt yooyu nga wax yépp ci séeréer si damay dem di bokk ak ñoom di lekk saaj di lekk cere ndax bëgg ca la yor tax ndax ngemb dafa am lu ko def te làmb dëgg buñ ko waxee séeréer la tax laa ilaha illallah dama daan dugg fii joof yor def fukki fan ak juróom ndax xam-xamu làmb di ko fa tarbiya dugg ñoojoor càjjaar yi fu ne di fa wut sëriñ boo xam ne day toog léegi di fas ndax ndax lu nit di wax lu ne day am seede lii fasa ko tax a jóg ndax ngi gis la waaw ah, xasum ngi la moo xam ne lu dul fas lu bis yu mel nii rek laay xaar oh. di fas di teg ki jóoni jóoni bu aaj jóoni jóoni ñu daggal la alaway xànceer daggal la musallas boole la ak jant bi nëbbu ñu def oh. lu bis bi laaj ci mystique dañ koy def ndax ndam dafa neex ndam kenn du ko caaxaanee pour ñeen du rox Modou Lo du ñaanlu Modou day ñaanlu adduwaawu silaawul moominiin Modou jullit la julli day ñaanlu. bu la woowee ci combat bu la mm-hmm. bu ma woowee bu ma woowu day ñaanlu ndax dañ ko xas xam ci sama ginnaaw bu ma départ eh, eh, ñëppay départ bu ma départ ñëpp départ Modou premier sortem la. ci titre roi des arènes. ci titre roi des arènes. waaye may sa mi ci njob bu ngay di jël boo ñu numéro bi. jàmbaar la. mburum géwél waaye ki waaye waaye ki ma am. li tax man du ku ne lay la man dama bëgg ko am jom. dama gis ne nag loolu da war nga cee taxaw nag Serigne Cissé dama gis Serigne su bëri tey nga gis leen ma Samba. Mhm. suba nga gis leen ak ma Demba gannaaw suba nga gis leen ak keneen mais li ñu gis Serigne Cissé biñ la xamee ba léegi benn mbër lañ la a xam. non dafa am Serigne soo xam ne gëmuñu seen bopp avant tout nit da ngay am personnalité buñ la xasee xamee kenn man nga am ak ñëpp jàmm nag waaye mbiru ñaan rawatina mbiru làmb dafa fiir. Hmm. mbiru làmb dafa fiir boo ci xasee dugg rek. ñu xam la kenn ngeen départ premier ba yegg si fii mu yegg si suba ñu gëstuwaat la gisaat la ci geneen keppaar suba geneen keppaar non non non rawatina nag def fës ci yenn yi noonu kon nit ki dafa am foo xam ne bu fa imaasam tollee am na loo xam ne lu koy jóg la lu ne la doon farata sëñ Cissé caaxaan yëkkatiwul ko sëñ Cissé caaxaan téyeloowul ko kurusam jii kon lépp lu sëñ Cissé def da koy def ci engagement yu wér pé waaye ay falaa falaa yi diw wéppéer ma tax ma dem ca combat ba non non dañoo war a signé ñu seet bañ ne signé nañ ko ñu soog a départ nag ànd ak tegtal ya ànd ak tegtal ya ba tey la làmb ji. ay boo ña waaye dimanche soreetut bu dimanche bu paree da nga ñëwaat la gis nga mbiri nga gis man nañ présenté rek. boobaa ngay xam. nu làmb di demee xam nga def trois pièces gees neer yor sa kurus gu rafet wàcc ci liggéey saat ci digg géew bi di joxe ay tegtal ne nii lañ koy def danga ku gis si sëriñ si mu sëriñ Babacar Si ndax Modou Modou la jaral loolu non non Modou sama nit la jaral na ma lu ëpp loola ndax man nit ku ma yëg waxuma la xaalis nit yëg-yëg rek boo ko defee du ma la yéenee te defee ci àdduna. la ilaha illallah. ndax yëg gi dafa bëri ci suma digganteeg moom Modou avant tout. la ma waxoon bërki démb ca ngénteel Lamine la ne Lamine taalube la Moodu taalube la xañ na kenn ku ne waajur dana liggéey ba am fu yàlla jaaree fayee ko fa Moodu yàlla da ko fayee seen waa kër taalube boobee nag moo tax ma samay mag yëpp a ngi ci ginnaaw da ngay dem fii fekk fa kër Cissé ak Mor Cissé ñun ci biir cumbukaay bi àllu saalum bii yëpp ñoo koy ñaay mag mu fa ne te lu baax danañ ko jël indi ko ci Moodu lu ko yëg-yëg gi mu am ci ñu nii mag mu fa nekk saalum te yor bindukaay bu baax yor nekk borom borom turu yàlla wér da nga ko defee ñu jël ko indil ko Moodu ndax la yëg-yëg gi mu am ci ñun. waaw saalum yëpp. siin ak saalum ba wala Kajoor tout. man avant mu di woote maay woote. su fa booy ñaar bu mu fa dugg mukk moom seen dëkk seen dëkk boppam bi xam naa ko te fa dama fa bari ay kóllëre te combat bii man la ñuy jàppale. la ilaha illallah bii. dama fa bëri ay nit a combat boobu bii man jàppale moo Balla Gaye bi ñu bëree ba ci suba sa dem naa ba ku ñu booy ñaar fii déggool gane jamono. Sambe Sambe ci boppam. dem naa ca Bawol ca Bawol te ñooñu combat bi dama leen di dugal ci biir combat bi. Lamine Serigne Cissé Serigne Cissé yaramam tàng dama leen di dugal ci combat bi Modou la ñuy jàppale. dégg naa combat bu jëree toog weer doo tëdd ci village yor sa bi bu jëree toog ci der bii. weer ci der bii laa koy teg si der bii laa koy teg <laughs> di fi toog guddi ak bëccëg suba ngoon nga combat bee ma ko jaral ndax Modou premier sortie du ma seetaan mu koy ñàkk Serigne Cissé Serigne Cissé première sortie ma seetaan mu koy ñàkk laa ilaaha illallaah taxasbunallaahu wa nixmal wakiilu nixmal mawlaa wa nixmal nasiiru wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haythu la yahtasib wa man yatawakkal ala llahi fa huwa hasbuhu inna llaaha baalighu amrihi qad ja'ala llaahu li kulli shay'in qadran ba beneen yoon. jërëjëf kontaan nañ ci yow. bëriwaat jël am. des ba dina saataan rek te man Gaston Mbengue laay teg man du man moom du ma man du ma reculer aw ma lu may maye. kii laa ci teg man maay diriger nga naan. tànk tey buy am man maay tànk mais noonu. man góor góor góor ëpp ma doole si réew mi ñu nekk. yàlla mooy dogal loolu. mais li ma la mën a wax mooy liggéey nañu liggéey bu méttee métti ci combat bi. su dawee ma dàq ko bu dawul ñu taxaw samp jàkk. la may ñaan yàlla mooy arbitre bi teg foofu benn bantu 30 mètres rek jóge suñu diggante.